bon je peux commencer carrément ça va euh, voilà ñëwaat nañu fii euh, ci Seneweb comme ni ñu leen ko doon waxee sànq dañuy recevoir benn ndaanaan boo xamante ne kenn du ko présenté ci musique sénégalaise muy Wally Balago Seck ñoo ngi fii biir studio ba mu fekk si ko ngir waxtaan moom si lu jëm si coronavirus thème bi tey nag mooy Covid 19 impact mu am si show business sénégalais role bi nga xamante ne artist yi mën nañ ko jouer ngir jàppale nguur bi si xeex gi muy xeex coronavirus ak moom Wally Balago Seck yan action lay mener actuellement pour xeex coronavirus bi wala mbokk pour respecter mesures de prévention yi Wally Balago Seck ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. dalalal jàmm ak euh, fii si Seneweb. waaw visite bi ah. maa ngi leen gis nañ ne bu ñu ñëwee fii nii buntu immeuble bi li njëkk li ñu njëkk gis mooy jox nañ ñu gel euh, hydroalcoolique ndax dañu nekk période du coronavirus bu ñu duggee si biir studio bi gis nañ ne tamit mesures sanitaires yi ñu ngi koy respecté Wally dafa ragal corona dafa mel nii. dafa évident. Mhm. Mhm. loolu évidence la. voilà nañ ne que génne nga benn chanson bu bees bu tudd digle lépp nekk ci prévention bu coronavirus ak sensibilisation yi mën nga ñu wax tuuti ci way bi. waaw way bi dama demoon euh, benn télévision de la place bi ma demee euh, ku ñu wax Tunkara. Mhm. grand bu baax. topp ma ci wayal wayal wayal après ma bi ma gisee Pape Sidi nekk ci internet bi ñu naan ko c'est c'est pourquoi la chanson moo tax. Euh, ma jublu ci ma digoon la ci naa ko def. Mhm. ma jublu ci ñëw ànd ak suma équipe ñu liggéey ko. Mhm. voilà gis nañ ne woy bi da nga si utiliser ay figures yu bëri mu nekk musicien que mu nekk animateur que mu nekk acteur culturel ou politicien la moo waral démarche boobu. waaw parce que affaire bi combat bi du man rek en plus ay nit la xamante ni c'est des mm, personnages yu rares. Mhm. yoo xamante ni di ko mën a utiliser te nit ñi dañu bàyyi xel. Euh, su ma limee damay juum mais euh, képp ku ci nekk rek euh, saw xel dañ lay déglu généralement. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. yow génnee nga benn chanson instant bi nii jàpp ban rôle la artistes yi mën a jouer pour sensibiliser ci coronavirus bi wala mbokk jàppale état bi ci prévention bi. non je pense que artistes yi moom ay ñaan ci des ak yàlla musal ñu. Ah. à part loolu toog suñu kër yi wéttali ah, mhm. jamono jii nii en tant que artiste nan nga dundee état d'urgence bi bu ñu xamee Wally da daan tëgg euh, très régulièrement euh, fans dañ koy faral di gis régulièrement tey nan nga nan la nan nga dundee loolu. oui je le vis bien euh, mhm. du may sax génn laisser passer ou pas du ma génn. Mhm. mais est amul impact si yéen seen liggéey en tant que artiste ban impact la ci am. am na ci impact. Mhm. mais nag xam nga euh, euh, ku njëkk a yuuxu da ngaa mhm. ah, am na fu muy toll ah bu si kim lakkandoo bi da ngay nangu nogal. Mhm. Ah, ku ne xam ne ni bokk naa ci euh, jeunes yi ëpp employé Sénégal. Hmm? dëgg la bokk naa ci te yàlla dogal na samay employé day gor aussi ah. ñu koy dund tamit ci ci wàllum ngor ah su ma amee jox leen su ma amul. xam ne amuma. mais li ma jot a baas néew maa koy bokk ak ñoom. metti na trop nag parce que kuy liggéey kuy fayeku chaque week-end donc bu toogee ay weer fayeku c'est normal day metti. voilà léegi est-ce que en dehors de musique bi Wally Seck am na yeneen activités yoo xamante ne jamono jii nii mën na ko permettre mu dund affaire bi peut-être avec moindre mal. waaw man nag musique laay dundee. Mm-hmm. Ah, à part musique fii jeune bu nekk fii Ndakaaru def nga business. Mm-hmm. Ah, jënd ak jaay yooyu am na fi tu mais ci musique bi laa gën a focaliser wu na mm-hmm. oui ça m'empêche pas des fois ma am suma business ma def ko ah mais ci musique bi laa gën a focaliser wu. Mm-hmm. gis nañ ne que malgré que ñoo ngi nekk ci période couvre-feu peut-être demu leen tëgg comme il se doit mais gis nañ que Wally moo ngi nekk studio di foo xëy na yenn saa ba génnee ñaari euh, clip yu mu jot du ma ne clip la sax parce studio bi ngeen nekkee. def ko YouTube nit ñi bëgg ko loolu lan moo waral loolu. waaw loolu dama doon ko def rek pour a euh, euh, am benn lien bu ma créé ak suma soppe yi nga xamante ni dañu tàmmoon di ma gis trop boo xoolee euh, ñi ñu sax dañuy jaawale fon ne clip la du clip mm-hmm. parce que sama studio laa moo naa ko génne son mu bañ am image mm-hmm. mais bu ci image bi àndee dafay gën a day gën a incité ñi ñaa ñu koy déglu ah loolu rek moo tax ma def ko ci studio mais mun naa ko génne nag def ko ci lu bi noonu rek bàyyi leen ko ñu koy wéttali ko daf ci am solo parce que ñenn ñi dama leen di wéttali ñenn ñi diaspora bi wala di nuyu à à travers Seneweb de passage waa diaspora bi. xam nga ñu lay bëggee. Mhm. nekk ci moment yoo xamante ni difficile na donc léegi lay xam nga woon leen ni xam nga c'est pas la fin du monde c'est juste une pandémie. Mhm. c'est bien. d' accord euh, waa dëgg la parce que daf si am importance yenn saa tamit euh, ñuy déstressé mais gis nañ ne que par exemple euh, nguur bi jot na jàppale yenn entreprise yi peut-être que am na ñoo xamante ne ñu ngi leen di jël quelque en charge seen ay une partie des salaires ndox beex électricité bi dem est-ce que artistes yi ñoom nguur gi jot na leen jox aide wala jàppale leen wala amu leen appel bi ngeen di lancé nguur gi si période métti bi ngeen nekk waaw boobu ma man nag personnellement gisaguma ko. Mhm. mais xëy na dina am ah, xëy na dina am d'autant plus que euh, dew ma laajte ko it. Mhm. wooteewu ma ñaan ndimbal. Mhm. waaw defi na parce que du sama habitude. ñi may dégg xam nañ li wax du sama habitude. waaw yàlla dogal na euh, euh, maa ngi sant yàlla je vis bien. ku ma jàppale it ma jël mais duma du lu may dem di laajte. Mhm. ndimbal nag du du lu force. Mhm. Ah, dëgg la non mhm. moo koy yëg rek mu def ko ah, bu ñu ko yëgee rek ñu ngi fii saa bu ñu woowee te luñ ma jox it ma jël ko jox ko samay musiciens jox ko ñi ma àndal jox ko ñi may liggéey. Ah. yow tey jii nii en tant que sénégalais du ma ne sax en tant que artiste mais en tant que sénégalais en tant que citoyen nan nga gisee euh, nu ñu gérer euh, coronavirus bi fii nii ci biir Sénégal. macha allah. waaw mm-hmm. yàlla bu ñu cat dugg. Mm-hmm. macha allah kon daal amoo ci benn chapeau chapeau chapeau chapeau macha allah mm-hmm. chapeau. médecin yi chapeau ministre ah, ah, ah, de la santé ak ñi muy liggéeyal chapeau nguur gi macha allah tamit ñu ngi def li ñu ñi nga xamante ni ñu ngi ci mbedd mi su couvre-feu amee bu vingt heures jotee ñu bàyyi seen jabar bàyyi seen i doom taxaw ci mbedd mi. mu seddee ñu taxaw bu tàngee ñu taxaw ñoom tamit macha allah muy force de l'ordre ñu leen di gërëm bu baax. Mhm. waaw voilà euh, yéen nan ngeen dundee jamono ji fan si parce que temps yii maa ngi gis benn vidéo benn xale bu jigéen nekk ci mbedd bi di dox ñu ne ko euh, lan nga mu ne man couvre-feu bi dama ci sonn ndax dama nàmm dem euh, Wally Ballago sekk dañu war a sàjji nan nga koy dundee jamono ji ak fan si. maa leen gën a namm. Mhm. <laughs> waaw mais nag xam nga amuñu choix ah, dañu nangu ndogal rek. Mhm. xaar ba mu ba mu jeex ak jàmm incha allah. voilà waaw euh, voilà ñu daal di def euh, pause tuuti daal di revenir le temps que ñu daal di wanaat euh, internet yi way bi nga xamante ne mooy digle ak cinq gestes barrières yi nga xamante ne moom la Wally Ballago Seck mettre en avant yokkal tuuti son bi ñu gën ko déglu. ko bare xeex ci arène bi doomu jàngoro bi mbër la mu bëri fee du lu ne fang te faw ngeen jàmmarloo jantal bi jiitu mooy raxas say loxo moytu dajaloo bi jaxasoo yi bokk yenn jumtukaay day mayoon jàngoro ma ko nangu wow wow dootoo déggale moo fi ëpp ñun yi laa ko sindee al sabali al yesi sokolo sabo yegee tawati sa na nga moytu dendandoo te wonte ko feebar bi mi ngi fii suñu biir ànd dogale ko mu bañ law jàngat ci bitim réew fi mën na bañ yees ku ne na bàyyi xel jëkkee ko ci sa biir ak sa njaboot taxilul tàntaan lépp Lavez-les souvent. Toussez dedans. Le visage. Évitez de toucher. Les distances. Gardez-les. La prévention. Restez chez vous. De grâce, chez vous. Ngalawaay, toog leen seen kër. talentueux waa yi moom leader la moom doomu réew mi la c'est un patriote et que tey ñun culturel ak gouvernement dañu war a bokk pour muy xam ne mooy orientation bu ñu def mooy gouvernement nee na salubrité nee na encombrement na lépp lu nekk nii muy coronavirus ñëpp dañu war a jouer seen partition moom a faramare ni yëpp voilà Euh, ñoo ko dégloondoo muy euh, déglee doon way boo xamante ne Wally Ballago Seck daf ko jagleel sensibilisation si lu jëm ci wàllum coronavirus man li ma lay laaj gannaaw ma dégloo way bii nii ba pare daf may daal bi mu ngi ñëw acoustique. nga ne li ngay laaj li may laajte mooy ñu génn tuuti ci euh, coronavirus bi. Hmm. mooy Wally Ballago Seck kan moo koy bindal ay wayam wala moom moo koy bindal ak lan moo koy inspiré ay mélodie wam. waaw morceau bi maa ngi ko def sax suma équipe. morceau euh, digle bi ak suma équipe ci mel ni Papis hmm, ñoom Samba grand Fadel tout ça wax dëgg yàlla pour l'instant amaguma ku may bindal mhm. waaw. donc lépp yaa koy bindal sa bopp daal. non bu ma solee casque fi naa xam fi ma jëm rek. Mhm. le des fois ma ñëw fekk Papis tracé ba pare. Mhm. Hmm, wala Samba wala Youssou gars équipe bi. mais pour ma dem jëm. woo ko bind way mu ñëw bind way joxuma way non amaguma ko nag. Mhm. voilà euh, Wally Ballago Seck la moo koy gën a faral di inspiré. su ma la ko waxee <laughs> c'est pas ça. Euh, par rapport ak inspiration yi ma ci instrument lay jóge yu ci bëri. Mhm. lu ci mel ni guitare wala harmonie j'aime trop les harmonies. tu mhm. loolu tamit dëgg la mais. Euh, fi may gën a inspiré woo ñi ma xam-xam nañ ko xoolal sama manager mi ngi retaan njagoro mi ngi retaan mooy toilette. <laughs> il faut pas nga retaan. non mais yow yaa ne bu ñu retaan. yaa ma posé question xaw naa di nga retaan wala Ndiaye mi ngi rey ah? non li nga wax euh, no c'est vrai que c'est drôle mais bëri na ay nit yoo xamante ne bu ñu nekkee seen toilette la gën a inspiré parce que foofu ngay gën a dalee. te kenn du nekk sa wet pour di la sonal donc euh, mën nañ la <laughs> mën nañ la accorder loolu noonu. <laughs> waaw voilà li tax ma lay wax ma laaj la question bi par rapport ak inspiration bi ak texte yi bu ñu comparé Wally Ballago Seck à ses débuts ak Wally Ballago Seck aujourd'hui dañuy gis ne que du ma ne avancement la mais bon bu la def euh, tey nan nga gisee sa carrière yow en tant que artiste. je le vis bien koy am naa ci yaakaar. Mhm. bu ñu yàlla maye gudd fan ak wér. Mhm. Ah, am naa ci yaakaar may ñu talak fekkee li ma ci bëgg amaana dinaa ko am. Mhm. mais ak conviction bu bari bëri laa ci àndal. waaw bu ñu doon génn ñi gën a gëm seen bopp Sénégal moom xam naa ni buñ dee juróom la du ma génn ci juróom waaw loolu ngëm-ngëm moo koy def ah. Euh, beneen bi ci topp mooy euh, am naa jàppale am naa ndimbal. am naa équipe bu baax entourage bu baax ay nit yu baax ah ma cité ku ci mel ni suma manager Ndiagoro ba ci suma rak Mohamed Seck muy directeur Faramaren moo ci gën a ndaw mm-hmm. sama orchestre ah, samay soppe sama am di jàmm vraiment euh, je le vis bien mais ci gàttal daal euh, affaire bi nekkatul fii nekkatul Sénégal mm-hmm. li ma bëgg nekkatul Sénégal li ma bëgg mi ngi ailleurs mm-hmm. baax na maa ngi ciy liggéey pour jot ci. Mhm. Euh, balaa maa dem ci euh, ailleurs boobu noonu ak euh, li nga xamante ne moom nga envisager si sa carrière tey bu président de la république génnoon ne confinement bi jeex na couvre bi jeex na ku nekk mën nga demaat ci ay activités ni mu ni nga ko waree Wally Ballago Seck lan lay njëkk def. waaw ah, bu leen ci sant yàlla bu baax a baax. Mhm. Hmm? xool plan de travail bu ñu wootee soppee ñëw ñu bëggal leen. Mhm. parce que ku ne xam nañ sama anniversaire dama ko fomb. ay bokk na ci li gën a rëy ci sama gagne-pain. ma fomb ko bokk na ci bés bi ma gën a man def dépense aussi. Mhm. entamé woon ko mhm. jël fi ma ko war a defee def yu bëri mais yàlla dogal ni warul am. Mhm. ci ni ma ko bëggee ci waxtu bi ma ko bëggee donc je pense que automatiquement du ma joué automatiquement. waaw foofu laa jëm. la ngay def anniversaire bi quoi. voilà jëm quoi wootee gars yi mm-hmm. ñëw. Euh, Wally Ballago Seck bu nekkee sur scène euh, li muy investir ci seen bi euh, ba dina ay wayu waale yoo xamante ne sax yi nekk li mu def en live ñoo gën a dox peut-être que yi nga xamante ne dafa toog studio togg ko Wally Ballago Seck lan moo koy motiver ci kaw seen ak lan mooy motiver ay rythme am ak ay mélodie wam waaw moom la wax ni man bête de scène la. Mm-hmm. Ah, ah, su ma nekkee ci kaw seen je me contrôle plus du ma contrôler damay def saa sax ma def loo xamante ni defewul mhm. après ngi lay xool nga ne eh waaye lii yëpp maa ko def ah mais doo ko tey parce que tu te laisses emporter par la musique ah par le rythme mhm. ah. mais travail d'équipe la rek man maay jiitu mais ne ci ginnaaw ñëw ki solo mhm. vraiment euh, tey boo doon xoolaat sa carrière lan moo la ci gën a neex loo xamante ne saa boo ko xalaatee yow Wally Ballago Seck da nga ciy fier waaw am naa ci contentement du kenn ku ne gannaaw yàlla ak yonent bi Wally sekk fi mu egg si maa ko fi indi. waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu daal yëpp nag. Mm-hmm. bàyyuma kenn. amul benn artiste bu ñeme taxaw ne Wally Seck maa ko defal lii pour mu fël fii. Wally Seck maa ko defal lii maa ko produire noonu mustaam self sama single première single ba fi may toll nii. sama clip ba fi may toll nii amul kenn man gannaaw yàlla. Mhm. lan la loo xamante ni peut boo ko doon euh, bu ñu la waxoon defaat ko doo ko def loola neexul peut li ma neexul bari na parce que nit ñun ne parfait. Mhm. man maa ëppale lacune. Mhm. mais nag euh, je pense que ku nekk soo doon. Euh, bu ñu la doon wanal ah, maanaam tajil bu ñu la doon wan li nga xamante ni moom nga war a def suba nga gis ko ba pare doo def erreur. ma la moom dafay ñëw si humain. Mm-hmm. Hmm? dafay ñëw te doo koy doo koy tay. Mm-hmm. donc erreur yi moom jot na jàll mais je pense que man may fàttaliku li gën a neex moom gënal may fàttaliku li ma gën a naqari en tout daal. savons exactement euh, Wally Ballago Seck man su ma dee décrire personnalité wam wala Wally en tant que tel dama naan peut-être que nit ku fort la parce que nee nga erreur bëri na te erreur mënul ñàkk te Wally Ballago Seck bu tolloo si moment boo xamante ne dafay bëgg peut-être laisser tomber wala mboog mu bëri ay ondes négatives yu ñëw ci moom lan na loo xamante ne su ko Wally Ballago Seck defee wala su ko Wally Ballago Seck waxee daf koy permettre mu dem de l'avant te du gestu si ginnaaw waaw man nag li may tontu bariwul mm-hmm. parce que xam naa ni ñiy wax. Mm-hmm. buñ ma fréquenté woon ñu xam ma du demee noonu. Mm-hmm. mais boo nekkee devant di liggéey nekk nit ku siiw moomu turam sa bopp. lu waay neex wax la généralement da ngay nangu nga nangu ndogal te xam ne ñi la jege xam la dëggantaan jaay duñ la ko waxal parce que xam nañ la. Ah, clash mënul ñàkk dafay yokk jom. Ah, prédateur. ah ak ay potin c'est bien. Mhm. dafa yokk jom. Mhm. mais man loolu mënuma tere bàyyi parce que xam naa suma bopp xam naa fi ma jëm euh, dama lay tënkal rek. Mhm. gis nga yoon bi ma jël yoon la bu ma war a jaar ala kulli xaal mënuma ko jéggi. yoon la. bu ma war a jaar. Euh, bu waree jeex rek dina jeex ci njëkk. ak teraanga. ak dal et par la grande porte sud mm-hmm. ma toog xaar yàlla ci leneen lu mu may dugal ma dugg ci mm-hmm. mais yoon la rek bu ma war a jaar mm-hmm. waaw du éternel ñaanuma yàlla mu éternel yàlla bu mu éternel parce que doomu jullit la je jeune am ay doom ëllëg ma war leen tette ëllëg ma war a nekk ak ñoom war a aji Makka war a defi lépp lu doomu jullit di def bëgg ko te am na loo xamante ni àndul ak li may liggéey. am na fu may toll. Mhm. mu neex ma mu naqari ma damay libéré jubli ci suma bopp jubli suma diggante ak suma borom. Mhm. toppatoo suma famille encadré samay doom. Mhm. E, ñaan na yàlla balaa muy jot li ma ci bëgg as tuut ma am ko. ba sénégalais bu nekk. bu déggee wàlli ëllëg ah wàlli kat defoon na fi lii mm-hmm. tôt ou tard dinaa xewi ci te bu boobaa dañ naan amoon na fi temps kon naa ko mm-hmm. naayisal rek mm-hmm. te buy naayis nag yàlla yàlla def li gën ma ma am ci ay raaya ah, defal ci Sénégal lu ñu lu ñu mën a gis lu palpable Mhm. mais ñaanuma yàlla bu éternel te yàlla bu mu éternel. Mhm. Euh, bu ñu la déggee dafa mel ni que Wally Ballago Seck moom dafa jox temps de carrière si lu jëm si musique dafa jox boppam peut-être benn âge boo xamante ne bés ba fa yeggee dafay wan ginnaaw lii di musique. du wan ginnaaw lii di musique. Mhm. dama nekk ci wut lu ma dundee. wut lu ma yore sama bopp wut lu ma yore suma askan. bañ gàcce. waaye tamit euh, ci benn côté ma topp suma bakkan. parce que lim ñu fi indee ñun ci àdduna néew ma ci 100 pour cent. Mm-hmm. bu <laughs> ah, ma ci 100 pour cent. maa ngi def sama kéem lay kattan la. Mm-hmm. Euh, bu ma demee nag ba yàlla dimbali ma ma toog ci lu dëgg as tuut. Mm-hmm. Ah, ah yàlla baax na ma indi lu ay raaya yi nga xamante ni dig naa ko Sénégalais te bëgg naa ko sama xol bokk na ci lii ma gën a bëgg. ma def ko ah ma génn par la grande porte. du ma di xaar sama loxo ñu koy génne ci ndab yi di ko foqati. ma nga xewi quoi. non non non mhm. non yàlla ko yor. Mhm. mais par ñu am na fooy toll. eh ñun bu ñu naxantee ah euh, âge bi la war a jël suñ bopp jox ko yàlla ci la ñuy wax dañuy mhm. jàngal ci alxuraan. Ah? donc bu ñu ma xaaree ba màgget amatul njëriñ te ba ma koy mën ba ñuy yaakaar ni tey laa gën a mën a way ba ñuy yaakaar ni tey laa gën a mën a saf nit ñi. su ma yàlla dimbalee falaa mën a wane ginnaaw lépp jublu ci moom. kon Wally Ballago Seck guddi yi mu toll moom mën na dëddu àdduna. kan moo ko war a songu téye ko moom ko rek ne doo ko bàyyi. Mm. xanaa ku jàngul. Mm-hmm. wala ku amul ku ko dimbali. Mm-hmm. wala ku amul ku am ku amul ko mm-hmm. ko song mu daan na fi ku ne. dëgg donc euh, liggéey boo gis am na app. ça dépend ci liggéey yi nag. liggéey boo gis. am na app waaye am na fooy toll am foo jaar ni mu mettee ni mu xatee yàlla dimbali la ci mm-hmm. defaloo ko lenn li tax mu defal la lim la defal sagal la ci seen kanamu nawle sa askan ah bëgg naa wàññeeku de balaa ma bala ma ko wuy ji kon nekkoo jamono ji si yoon bu baax ba tax nga bëgg a wàññeeku pas yoon bu bon mhm. dama la bëgg expliquer ci li ma ne mhm. bu ma naxee sama bopp bu ma naxee sama bopp bu ma déggee leen nit ñi ak lu waay mën a wax mhm. ku ne xam na ni ku ne xam na ni dëppoowul ak li yàlla dégle d'accord euh, Wally Ballago Seck wax nga ko da nga insister sur le mot chemin te xam yoon bi nee nañ xat na te bëri na xaaxaan yow Wally Ballago Seck quelle est ta force lan mooy sa force jamono jii nii je crois en et j'ai la foi en mm-hmm. te dama am yaay joo xamante ni mun naa wax bokk na ci sama wasila parce que du jóg ci dëkkal sama nopp yi yàlla na la yàlla jàppale sagal la ci li ngay def sagal ci mbooloo mi ngi ko bokkal ba nga jox la li gën li nga nekkee mm-hmm. naam sama yaay bi ma jur mhm. moo bëgg loolu asuma man mi sam bopp war a xamante ni bàmmeel man kese maa koy tëdd dëgg la macha allah benn na ni que Wally ko Seck maturité bi ñuy wax euh, dans les paroles euh, maanaam boog musique bi muy def dafa reflété wu ci personne euh, moom non du wax loolu parce que parfait wu ba léegi maa koy waxaat ak ko mhm. parfait ma man waaye xam naa ni bonu <laughs> d'accord euh, Waly Ballago Seck ñu daal di dellu un ci ginnaaw ci li nga wax euh, nee nga li ngay faral di liggéey mooy ak sa staff yi nga xamante ne lañ la wër te bëgg nga yegg yenn niveau wala bokk am yenn raaye yi yow lan ngay tontu ñi nga xamante ne dañuy faral di wax naan staff bi wër Waly Ballago Seck daf ko war a changer. ñoom nag ku nekk am nañ ci droit. Mhm. waaye man xam naa ñi ma àndal. Mhm. wóor naa lañ ba fi may ànd ak ñoom nii doyloo naa leen te doy ma. Mhm. waaw. Euh, nga ne jamono jii nii bii ngay def mun na percer. maanaam boo ko raaye fi nga bëgg a yegg réellement est-ce que nii ngay def nii di defee musique bi noonu mën nga ko ci am. sous région bi ban dëkk ngay dem laajte nga xam nañu Wally Seck ñu ne xamuñu ko li ma waaw. est-ce que c'était évident est-ce que mm. yoon la est-ce que par force la. Mm-hmm. sama liggéey moom fa yóbbu. dëgg la. waaw sama liggéey moom fa yóbbu. Mm-hmm. ñaan baax na yëpp baax na waaye liggéey daf ci am solo. Mm-hmm. j'ai travaillé dur et j'ai pas besoin qu'on le dise. xam naa ko parce que man maa koy ñàkk may liggéey soxla mu ñu naan ma sax Wally yaa ngi liggéey xam naa ko mm-hmm. waaw man bëgg naa ko gëm euh, boppam parce que ni ñu koy waxee tout le temps la modestie est l'arme des faibles euh, donc euh, Wally Ballago Seck balaa ñuy jeexal waxtaan wi parce que technicien yi ñu ngi may def signe na ma heure bi mu ngi ñuy dab ku wax Wally Ballago Seck wax scandale mënul ñàkk ndax li ñu koy wax ci ay coow bëri na li muy mm-hmm. nekk à la une des médias na mm-hmm. li ñuy tudd Wally Ballago Seck si ay fee yoo xamante ne peut-être que <laughs> dese naa jaar yoon mm-hmm. yow nan ngay dundee scandale yooyu noonu waaw scandale scandale moom mënul ñàkk ah lii fi jotoo jàll ci scandale bëri na. Mhm. je pense que li ma ci waroon wax yëpp wax naa ko ah. Mhm. Euh, comme Ndakaaru moom Sénégal mariirandoo bi bëri na te ñun ñëpp ñu ci bëri cinquante pour cent ñiy wax xamuñu ba ci man mi ah donc scandale bi mënul ñàkk. Mhm. mais xam naa ni daal bu ñu doon dugg ci kër yi. di génne ñi gën waali bu ñu duggee sama kër génne waali <laughs> waaw d'accord gis nga Wally Ballago Seck bu muy dem màkk sax dafa def coow yow li may laaj mooy yow bi nga njëkkee teg sa sa sa tànk màkk lan nga ressentir woon waaw j'étais content mhm. man sama taawu góor Seydina Mouhamed laa ko tuddee mhm. ma amoon juróom-ñaari doomi góor it mhm. juróom-ñaari ñëpp Seydina Mouhamed la ñu xam naa moom xam na man xam naa. Mhm. su ma moon juróom-ñaari doom yu góor juróom-ñaari yëpp Seydina Mohamed lay tudd. Mhm. c'est mes propres raisons et sama dem bi rëccuwuma ko kenn sexalu ma lem pour ma dem. Mhm. xaalis yu kenn demu ci. man maa dem sama jabar jëndal ma billet ma dem jox ma ko sama carte d'anniversaire su ko leeral ni woon su ma ko joxee duma dem wala bëgguma du ma ko jox. bi may demit na xam ni war naa mën a yóbbaale mm-hmm. mu yóbbu sama manager mm-hmm. ñu ànd muy njàgg waro ànd ak ñaar xarañ mm-hmm. ñu dem te yàlla xam nañu ren jii dama doon umra ji yàlla xam na ko sama yéene ren moroon doon dem umra ji mais mënu ko parce que te màkk dafa tëj parce que âge bi ma talu nii mënal sama bopp dara kan moom moo wax dinaa ko mëni ëllëg dëgg la on sait jamais et sama devoir la droit la obligation la pour à ce que ma dem aji Makka mhm. dafa bokk ci les cinq piliers de l'islam voilà ma delluwaat tuuti ci scandale yi Wally Ballago Seck dafa doon loo xamante ne dafay dal sa kaw peut-être ndax da nga weex dunk wala nekk loo xam ne yow yaa koy provoqué peut-être pour que nit ci di wax si yow li tubaab bi naan buzz. dépassé naa fu may provoqué dara pour ñi di wax ci man. Mhm. su may provoqué naa provoqué lu baax. Mhm. li fi jot a am ci scandale ku ne xam na ko ah dugg naa ci boutique jënd yére bu ma xamul yére bi je me rappelle sama benn jigéen bu ñu wax Sophie moo ko jënd. ñu ngi koy jënd maa ngi ànd ak grand Samuel ak ay nit ñu ànd mu dugg ci boutique ma tànn li ma neex. Mhm. gis ko rek mu neex ma. dëgg la. ma ñëw sol sama yére war a génn dem concert sama jabar ne ma solal bii bii la gën a àndal. Mhm. ma génne ko sol ko. Mhm. su ku ma waxoon di bu ma solee loolu coow loolu dina ci am. doo du ma ko sol. mais xaw ma ko. parce que intéressé wu ma lu la intéressé wu mënoo ko xam ñi ma intéressé xam nañ ko. ñoom ñoo koy féete. yow booy xool. ñu ne la naajo bi lii lay jar mhm. fii la gën a baaxe ñi dem di jënd naajo di liggéey ci agriculture xam nañ ko mais ñi ci liggéey xamuñu ko dëgg la tey su ma doon jamonoon su ma doon jaay saag bi mhm. wala nga ma doon jaay saag bi xaw ma li muy jar xaw ma njëgam parce que intéressé wu ma mhm. noonu la demee noonu rek la demee Euh, mel na ni réponse bi claire na ba tax na may wax peut-être sama dernière euh, question bu amul internet yu laajte parce que ñoom tamit dañuy commenter en direct. ah dañoo nekk en direct. waaw. <laughs> waaw donc Wally Ballago Seck non mais amul benn dérapage alhamdulilah. wópp <laughs> d'accord <laughs> voilà donc Wally Ballago Seck man li ma lay laaj mooy nee nga sànq da nga dugg ci boutique euh, daal di xool euh, peut-être ki la dana tey Wally Ballago Seck bu jógee di sañse moom si lan lay basé wu pour sañse lan lay xool xaw ma sax damay xool li ma neex man dama koy sol sama xel mhm. par exemple ma jël bi xool chaîne bi ne moo sa na rafet sama xel mhm. jënd ko non waaw mhm. aw ma problème marque nag mën naa sol sax marque 1 man dérangé wu ma na ma neex ma bëgg ko lu mu jariñ su ma ko yoree mën naa ko jënd mhm. waaw d' kon mu doon lu am importance parce que style vestimentaire Wally Ballago Seck tam ñi koy wax euh, bëri na tontu na ko nee na en général il part au feeling avec euh, rien de particulier donc ñoo ngi si dernière question bi man li ma lay laaj mooy Wally Ballago Seck kañ la prochain album bi est ce que mën nañ attendre peut être benn album religieux de la part de Wally Ballago <laughs> waaw nga ni ma. waaw waaw. non sama prochain album euh, album international la ñuy wax parce que euh, tubaab bi jënd na ko moomuma ko. Mhm. ah dinaa ko génne buy passé. Mhm. bu ci yàlla andee. incha allah ah ñoom ñoo ñoo lay ñoom ñooy wax kañ lay génn mais xam naa du génn ci at bi ñaan nañ ci yàlla du génn ci at bi parce que mhm. ku ne xam ni kenn talul dara ak pandémie bi. donc bu loolu génnee euh, peut-être dinaa concentré ci beneen album next step. ah mais li ci gën importance daal mooy. liggéey naa ko ni mu waree. Mhm. affaire bu balèze la affaire bu graw la affaire bu lourd la. Mhm. bu ko bu génnee bu ko Sénégalais yi bu ko monde entier dégloo dinañ xam ni liggéey naa ko. Mhm. vraiment liggéey naa ko. Euh, ñu ngi may soufflé benn ah, question xam nga ma defantu waaw man loolu moom je n'en doute pas euh, ñu ngi may soufflé benn question Wally Ballago Seck ndax am na référence peut-être si musique bi wala am na koo xamante ne boo ko gisee fii nii ci Sénégal am na yaakaar ci carrière am si jeune génération bi mm. muy ancienne génération bi ndax am nga ci référence wala mm. mbokk contemporain ak euh, génération actuelle bi koo xam ne boo ko gisee di nga di nga kontaan ci moom daal waaw jeunesse bi moom vraiment ñoom ñëpp su fekkee yàlla rek tax may wax ñoom ñëpp ay càmbaat lañu. Mm-hmm. parce que ñu ngi liggéey dans des conditions yoo xamante ni tax ko garaaw. métti mm-hmm. euh, na te ñu ngi ciy génn. Mm-hmm. ñoom ñëpp ku ci nekk mën nga porter drapeau bi fu sori ku ci nekk mën nga lu rëy ci Sénégal. bu fekkee yàlla rek a tax. référence ci côté musique ci kilifa yi bëri na bëri na. bëri na ay ñoom ñëpp ay référence lañu. mais man personnellement sérieusement parlant dama am bàyyi ju mën a way trop. Mhm. macha allah wax dëgg yàlla. référence non non non pas loolu mais dama xam ni euh, ndax ko way dina jafe loolu ku ci mel ni coon <laughs> donc suñu waxee quatre références damay xaw a tënku. Mhm. mais bu ma doon euh, xool ci côté gëm sa bopp. Mhm. gëm sa bopp gëm ni lépp lu baax yaa ko war a am. je dirais Youssouma Jigéen Ndoor. macha allah mhm. d' accord euh, euh, technicien yi ñu ngi may def signe ba léegi réponse bi neex na ma nag macha allah euh, Wally Balago Seck ñaareel est ce que c' est en vue wala xalaatoo ko. je suis musulman. Mhm. toog fenn na du ma takk ñaareel. parce que jullit laa. Mhm. yàlla may na moom ñeenti jabar. waaye yàlla dogal na am naa jabar ju mat palaasam. di suma doom di suma mm. xarit nit laa nag mm-hmm. hmm? te lii ma yàlla may à tout moment mën naa ko jël mm-hmm. you never know ah on sait jamais mais euh, ñaanuma yàlla jël jabar te du mel ni soxna mm. macha te soxna jafe na trop lan mooy qualité soxna yi nga xamante ne foo tollu naan soxna soxna soxna soxna quelles sont ces qualités li nga xamante ne yow mun nga ko lim ne saay boo ko xalaatee da ngay dafa yaatu dafa am iman. Mm-hmm. dafa yaru dafa baax sama gaañ la te moomu juróom Seydina Mohamed nag. Mm-hmm. waaw def naa ko lu bari bëri. Mm-hmm. waaw moom muñ ko jàmbaar la. xam nga damaa sa bopp. <laughs> def naa ko lu bari macha allah muñ ko jàmbaar la. Mm-hmm. jàmbaar la. Mm-hmm. donc euh, gis ku mel ni moom dina jafe trop te ñaan ma yàlla indi soxna ci kër gi te du mel ni soxna. Hmm. te soxna dafa jafe. dëgg la donc nag euh, yàlla baax na daal. yàlla baax na waaw voilà l' émission tire à sa fin waxtaan bi neexoon na lool nag su doon sama sago ñu gën koo xóotal waaye comme ni ma ko waxee heure bi daf ñu tënk ba tax fu mu toll nii jeex na euh, Wally Ballago Seck sa kàddu gu mujjee ñu daal di di tàggatoo ak internet Seneweb yi. waaw balaa dara xew man Seneweb moom seen xarañute man man daf ma dépassé. Mm-hmm. sama kër gi lañ toog di ko waxtaanee ñoom ñu koy direct. Ah, maa ngi nuyu bu baax a baax euh, Fata ah Evans. Mm-hmm. bokk na ci jeunes yi gëm waali gëm ni ñoom dañu war a apporter dara mhm. maa ngi koy gërëm bu baax lii bu oyofee tey gannaaw suma manager moom ah, def na ci jéego yu rëy mhm. parce que ku ne xam na ni moment bi euh, heure bii dama mujj jël suma gaay mhm. dama dig sénégalais yi ay morceau dama lay mujj toxal benn studio pour assurer bu ma accueillir fi waa Sénégal parce que xajuñu fi lii dem sama néeg mi man fii dama ko def rek pour su ma génn rek waaye donc ah Euh, maa ngi koy gërëm bu baax fa Fata di ko ñaanal jàmm sama grand frère Salam mbokkum yaay Mbadou maa ngi koy gërëm bu baax a baax euh, maa ngi nuyu équipe Sénégal bi yëpp dañu wax ni su ma waxee lu dëng maa parce que déjà direct bi sama manager yi bëri daf ma koy nëbb day xam yenn yi def publication mais daf may nëbb parce que du bëgg may may dafa bëgg may ma ci ne automatiquement naturellement mm-hmm. donc moom xam na li may wax nii neef ma daal moom émission rek mais waxuma ni direct la. dëgg la euh, mais bon alhamdulilah amuloon benn dérapage kaddu gi rafet na internet yi bëgg nañ ko loolu euh, ba tax na tamit ñu ngi lay remercier si dalal bi nga xamante ne dalal nga ñu ko tey fii nii sa biir studio wax nga ko yombul ndax fan si dañ lay xaar euh, ci way yi nga leen di bigal si YouTube bi te mu neex loolu ñoo ngi tàggatoo ak yéen di leen dox dig daje ba tey si ba bu nekkul autorité politique dina doon autorité bu bu xarañ ci li muy liggéey muy sport muy musique lieu ak lu mu mënti doon fii ci Seneweb lay xewee bu leen fàtte yi tamit abonné suñu chaîne YouTube euh, Seneweb TV di leen jox rendez-vous bientôt tey tamit di remercier suñu directeur commercial mi yombal tey jii nii euh, interview bi muy Pape Alioune Sakho di nuy nuyuwaale tamit suñu président directeur général Abdou Salam Fall ak technicien yi fi nekkoon tey Medoune Aliou Ba Thierno Massokhna Gueye di leen jox dig daje incha allah fii ci Seneweb ay fiix ay fan merci beaucoup. ah j'adore j'adore Dakar dama ko bëgg dama ko bëgg trop sama xol sama yaay sama maam pël la waaw sama maam pël la ba ma toral nice waaw waaw dama doon